Jérôme Benifan, juróom benni fan si avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot résultat test testu taille. si juróom ñeent fukki test ak juróom yu ñu réaliser ñent ñoo si positif bon nag ñeent ñoo si am n'y a ñetti ay cas contact yu ñu suivre la benn bi moom la ñuy wax transmission communautaire mënaguñ ko lënkalee keneen ñu leen di yëgal tam ne tey fukki patient yu newoon hôpital wér nañu bésu tey bi dañ leen génn hospitalisation ci bés bi ñu yëgal ne donc ñi xamante ne ñi ngi hôpital di faju ñi ngi yëg tan bu baax ci bésu tey bi ba mu dooree léegi ñaar téeméer ak ñaar fukk juróom benn cas moom la ñu déclaré Sénégal ñi ci wér ndëg juróom-ñeent fukk ak ñaar lañ ñaar ñoo ci génn àdduna kenn ki ñu évacué ko bon ndëg ci bésu tey bi ñi nekk hôpital ñu leen di faj ñu ngi tollu ci téeméer ak fanweer ak benn ministère de la santé de l'action sociale mu ngi ñaan population yi ñu tënku bu baax ci li ñu leen di digal pour que xeex bi contre Covid 19 ñu mën ko gagner ci nu mu gënee maa ngi leen remercier bu baax.